waaw sama yaay nga noonu ndeysaan di daal di jël bool rek daal di dem Maroc dem ziyaara ji si Ahmed Tidiane Serif waayam ja kon ñu ñaanal ko